non dégg naa dem stade yóbbaale ngi nii ci xale yaa ngi noonu ci digg géew combat bi dox ci diggante Petit Rock Énergie Bébé Garga école de lutte Balla Gaye arbitre ngi waxak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ laaj na ay jugeem laaj na Petit laaj na Bébé Garga nee ko ba xam pare nga nee na waaw Petit Lo kàbbar ko Bébé Garga a ngi noonu Petit Lo moo ngay ñaan tufli na taf ca kanam nga wàcc na teg na pied gauche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 Eh, lu ñu entraîné la nee nañ ma teel teel eh, mais amaana sax xaar bu yàgg bi mënu ma ko wallaahi moo ma dem mais dem la wuñ ma sax eh, ñëpp nee nañ ma sa tànk la jëm aw ma woon sax droit dóor ba mu yegg fi ma yegg noonu waru ma woon yegg ndax wax nañ ma ni sa tànk la jëm mais man maa mënul xaar moo tax mais di sant yàlla bu baax quoi. ñoo ci def sama morom nañ ma jël quoi sama morom ñu ñu woowee ay jàmbaar Bébé Gouy Gui Bébé Gouy Gui nañu ñu bëree Bébé Gouy Gui ah nañu ñu bëree man damaa bëgg bëre ak ay jàmbaar barki alxuraan ay jàmbaar laa bëgg bëreel ah man